ñëpp koy soxla soxla woo di ko ñaan te moom amul aajo ci kenn lu waaye def lu ne wala nga mu sant la nga def ko ngir sa bopp la waaye du moom moo ci am jariñ te nit mënu koo ñàkk bañ jariñoo moom sun borom kenn mënu koo ñàkk bañ a jariñoo loolu mooy asamat asamat mooy kilifa gi loolu lañ koy tekkee kilifa gi yàlla mi doon kilifa gi nga xam ne ñëpp aajowoo jëm ci moom te kenn moom aajowul kenn lu la sant rek ngir ngir sa bopp la moo tax sëriñ bi ne xéewale yàlla sun borom mi borom aras ju màgg ci aras yu màgg jooju tey kilifa ñëpp aajowoo jëm ci moom te moom aajowowul kenn xéewalam xéewalu suñ borom boobu yàlla na ko def ala nabi ci yonant bi wa alihi ak waa këram wal xummadi ak mbooleem kuy sant kon eh, loolu ci tawasul yi la bokk maanaam booy ñaan yàlla sunu borom jaare ko ci soppeem bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ci moom ba noppi doo ko tàmbali sa ñaan loolu euh, sopp nañ ko ci kuy ñaan ku nekk ngay def tawasul jaaree ci yonent bi doo ko ñaan sa borom ñaareel bayitu tey bi sëriñ bi na rudda maka idal ida ilal ida yaa man xabaaniya bi mux jili ida mu ne rudda yàlla nga delloo makaa idal xedaa pexey noon yi ilal daa mu delluwaat ci noon yi yàlla nga delloo pexey noon yi mu dellu ci noon yi yaa man xabaaniya yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma may bi mox jili xedaa ci ma gàccaal samay noon maanaam noon yi eh, amoon na ay pexe yu bëggoona pexeel sëriñ bi waaye yàlla sottiloo ko yàlla moom may loolu sëriñ bi mun ne ko yàlla yow mi ma may loolu yàlla nga delloo kon lépp luy pexe noonu rek yàlla nga ko delloo ci noonu yi yow mi ma mayoon 1895 lañ bëggoon ñoom dara lañ ci amul ba tey jii nii le 27 septembre bi weesu sax lépp lu doon nuroo ne doon méttiwoon sëñ bi ca Ndakaaru ci ñaari guddi ya bërki démb gàccaal na ko bërki démb lam bëggoon am na ci ci ci ci bët nit ñëpp teg ci seen bët lu mas am Dakar te mus faa am muy jumaay ju toll ni mu toll mbooloo mu toll ni mu toll ñu taxawal di yëkkati kàddu yàlla suñu borom mu yëkkati ko ci kaw tabaxal ko néegu yàlla boo xam ne kenn taxawul tabaxu ko ko foofu kon lu mu dajoon rek tey ci feeñ na ci bët nit ñi ne sëriñ bi mbégteem day gën a sax rek yàlla na bu ñu ump ñun bokk ci ci mbégte moom kon yàlla yàlla nga delloo pexe noonu yi ñu yem ci noonu yi yow mi nga xam ne yaa ma may eh, ma gàccaal samay noon samay noon lañ bëggoon ci man amuñu ko ñetteel béy bi awsil li kulli muslimin wa muslima masaratan yaa man ka baani zolama awsil yàlla nga àggale yàlla nga jottali li kulli muslimin ñeel bépp jullit bu góor wa ak bépp jullit bu jigéen masaratan am mbégte yàlla sun borom yàlla nga yeggale ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen mbégte mbégte mbégte rek nga xam ne kooku lu mu bëgg rek dina ko am moom jullit bu góor bi jullit bu jigéen bi yaa man kafaani yaa yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma fegal azalama tooñaange yow mi nga xam ne yaa ma fegal tooñaange kon euh, loolu mooy ñetteel bayit bi mooy borom àggaleel bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen mbégte kon ne ñëpp di bég rek may mbokkeel mbokkeel mbokk taalibe ci safar gi ñu tàbbi kon mbégte moom yàlla nañ ci dugg loolu sëriñ bi ñu foofu ci wakaan li kulli muminin wa kulli mumina awsil busharat li safi mutmina da nga ñëw ci ñaareelu xàbb bi ne awsil yàlla nga àggale wala yàlla nga jottali busharaatin ay mbégte li safin gu cell gu ñeel gu cell mutmina bu sax yàlla nga àggale ay mbégte yu ànd ak sell gu sax li kulli muminin ñeel bépp way ku gëm ku góor wa kulli mu'mina ak mboolem ku gëm ku jigéen nga àggal leen ay mbégte yu ànd ak gu cell te gu sax yàlla nga leen ko defal sunu borom ñu ñëw ci bayit mujj bi ci page mu ne muddali kulli moxsinin wa moxsila ala busharatin tura mustaxsana mu ne mudda yàlla nga tàllal yàlla nga jox li kulli moxsinin ñeel képp kuy rafetal te doon góor wa na ak képp koy rafetal doon jigéen ala busharaatin gën gaa kawee mbégte tura yoo xam ne dinañ ko gisee dinañ ko gisee mox sax mustaxsana lu ñuy rafetlu ñëpp di ko rafetlu yàlla sunu borom yàlla nga tàllal jëmale ci ki nga ñi nga xam dañuy rafetal doon ay góor ak ñi nga xam dañuy rafetal doon ay jigéen gën gaa kawee ay mbégte mbégte yi na mu gën a kawee rek na mu gën a yeggee fa mu gën a yegg rek na mu gën a kawee yàlla nga ko taalal ca ñooña ba mbégte yooyu ku ko gis rek xam ne yi mbégte yu ñu rafetlu la ñëpp di ko rafetlu rek yàlla nga ko defal ñooñu sunu borom sunu seetloo fii mbokk yi dinañ fi gisaat imaan ak islaam ak ixsaan comme ni mu ko tàmbale woon ci xaside ga ci azhabta ya ah, comme nam la waxee woon azhabta yàlla nga dàq eh, eh, ñi nga xam ne ñu way womatu lañ ñi nga xam ne way gëm lañ ñi nga xam ne way rafetlu lañ wom nga dàqal leen eh, ñi nga ne dañuy def ay dañuy teg ay fitna te gëmuñu yàlla ba bàyyi ñu xel ne ëllëg dinañ dajeeg seen borom di def yu metti jëmale ko ci jullit yi ak ñu baax ñi nga dàqal leen ñu jóge foofu. léegi foofu dafa jiitaloon imaan teg ci islam teg ci ixsaan noonu la indiwaat fii tamit boo xoolee fii gis nga ko aw si li kulli muslimin ñëwaat ne li kulli mumin wa kulli mumin awsil busharatin ñëwaat ne mudda li kulli muhsinin wa muhsina en la busharatin tura na kon mbokk yi ñu ngi dellu di jégalu mbokk yi taalibe yi ñuy déglu di jégalu baax yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu ko yàlla boole ci liggéeyub sëriñ bi te sëriñ bi nangul ñu ko gën gi nangu euh, mu nekk suñu ko texe ñun ñëpp rek euh, ci xaside gi te gën a am ay dégg-dégg yuñ ciy jariñoo xam naa bu ñu demee ba mottali xaside gi incha allah danañ gën a ñëwaat ci wàllu lasraar yi lan ci gën a mën a jariño léegi dañuy gën a yem ci firi bi rek buñ demee ba nga xam ne nag matal nañ xasida gi ñu ñëwaat ci ni ñu tàmbalee woon ci tàmbali bi euh, bayit bi ku koy def waxtu sàngam wala jëlee leen ci mag sàngam mu ne nangam lay tollool ku ko def nangam nangam ngay ndax xasida njariñ la rek te njariñ yi yiñ ci xam yiñ ci xamut moo ko ëpp waaye lépp loo nga xam ne baaxee nañ ñu ko ci magi taalibe yi rek danañ ko baaxee ci jataay bi su ko defee ñun ñëpp ñu bokk jariñu ko ngeen doon ànd ak seen bokk euh, Mokhtar Dioum ñu gën koo xam ci njaga jum taalibi Serigne Ndiaga Sylla imaam asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu.